lii feebaru deret la mooy deret boo xam feebaru deret boo xamante ni si nit ki ko amee deretam li koy wayal moo ciy manqué waaw ki amee feebaru hémophilie dafay wutee ki nga xamante ni si amewul feebaru hémophilie ndax bu nàcc bu deretam bu yaramam daggee di nàcc saignement bi dafa yàgg lool pour mu arrêté mooy si ñi nga xamante ni si nit ki amee hémophilie à bas lañ koy ràññeekoo mais ba mu nekkee xale bu commencé jàng toog rek da ngay gis yaram bi day am ay néewi néewi yu xonq xonq ba jàpp ñuul wala mu jékki-jékki ay articulation di néewi di métti ci biir mën na gaañu ko mën na bañ a gaañu loolu bokk na ci signes yi nga xam wala mu dagg di nàcc-nàcc bu métti te arrêté mën nañ jàpp que ne kii dafa amee feebar bi ñuy wax feebaru hémophilie muy feebaru nàcc-nàcc